أن النميمة كبير من الكبائر وموبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات قد يأتي صاحبها يوم القيامة وليس معه شيء من الحسنات والعياذ بالله مكيننا نحم جن رمبا لريل xam ngeen ne rambaaj lu rëy la fa dafa am li ñuy tuddee ci lislaam alkabair ak li ñuy tuddee ay muubixaat bàkkaar yi benn bàkkaar tuutiwul waaye ci biir bàkkaar yi bàkkaar yi gën a garaaw nga xam ne day alag nit ñu tuddee leen ay muubiqaat fen ci bàkkaar yooyu la bokk rambaaj ci bàkkaar yooyu la bokk <clears throat> yi nga xam ne booy catégoriser bàkkaar yi gën a rëy ñu naan la ay bokkaale ay rey nit boole ci fen ak rambaaj kon du bàkkaar bu suufee te presque moom la ñuy fowee nee na bàkkaar la bopp dafay alak doomu aadama nee na ab rambaajkat buy ñëw yow xiyaam dara du ko topp maanaam du ëndaale benn yiw lu mu mës jaamu yàlla ci àddina fi lay yem dara du ko topp يأتي يوم القيامة وليس معه شيء من الحسنة لأن أبرم رمباج كردو أن ليو يوم القيامة دو ديسي دارا لأن إتم ورحم الله من قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الصاحر في سنة لأن يالني يالي يرمل نوخ كد بله آه. yahya ibnu abi kathir mune yal nako yalla ko ndax waxam ju reuy ju am hikma ji sagesse pure la wax neena li ab rambaaj kat meuna yak ci ben waxt ab njabar kat meuna tok di njabar atu yalla munu ko yak ci nit kon xam ngeen lol graw la ta xam ngeen njabar krim la njabar atem ci l'islam mom ci crime yi lañ ko dugal nit bu doon njabar ba nu japp ko ci l'islam mom ci lay dem ànd ak loolu yeb lu mu sonn diko def 1 an ci njabar nit neena ben waxtu rambaaj kat mo upp doole njabar kat bobu lim meuna yak moko gëna gën a efficace ci yàq nit wa rahima allahu man qala amalu namaam ashaddu min amali shaytaan fa inna amala shaytaan bil waswasati wal xiyaal wa amalu nee na est xam nga ni jëfi rambaajkat moo gën a garaaw moo gën a dangereux moo dàq lor jëfi seytaane pexe yi seytaane di def ki nit pour gaañ ko pour yàq ko nee na bu rambaajkat ko gën a garaaw nee ndax seytaane bu lay yàqal di la fowe nee na da koy jaaral ci di la jax-jaxal sa xel léeg-léeg mu def loola xel ñaar léeg-léeg mu def la ay xeyaal ngay imagine benn affaire rek naan lii day def mooy nuru nangam nee na seytaane loolu la mën ci nit mais nee na rambaajkat moom du ñëw ci ay imagination danaan jëmm sa kanam nee na moom day ñëw teew ak jëmmam jàkkaarlook yow di la dévier par moo tax nee na jëfam mo gëna dangereux jëfu shaytané lan moy la faaj wa namamu huwa ينقل الحديث بين الناس على جهة الافصاد نينا كان موي رمباج كان نينا موي نيت كو خامني داي توخال واخ سي نيت يوبول نيت تي جوبلو سي ياق تي جوبلو سي ياق parce que toxale wax ci nit yobbu ci nit ayul mën na doon yiw waaye toxal wax yoo xam ne lenn nga ci jublu mooy yàq ab diggante mooy ah diw de nee na la nangam ak nangam te yow xam nga ni loolu nga wax mën na yàq digganteem ak diw koo rambaaj kat pur na mooy di toxal ay wax jëlee ci nit yóbbu ci beneen nit te intention bi mooy ngir yàq diggante boobu ngir muy mën a ñaaw ci moom njort ngir muy mën a am ci moom xel ñaar ngir dootu ko wóolooti rambaajkat pur a ngi noonu yan ci yàlla musal nee na atteem jarul laajte ci lislaam lu xaram la yàq diggante yéene ba rek baaxul nee na rawatina nag bu fekkente ne dangaa boole di ko jëf nee na sunu boroom moo wax yenent sallallahu alayhi wa sallam te enseignement général la daf ko jaaree ci yonent rek wala tuti kulla xallaafin mahin hamazin mashaim bi namiim ne na rambaajkat bu mel nonu sunu borom diñu ko tere ci alquran ne bu len len top te bu len ànd ak ñoom nena na yonent sallallahu alayhi wasallam wax ni ci hadith la yadkhulul jannata namam yonent nee na aljanna ab kat du fa dug mukk katu nit yonent neena du dug al janna to koku lumu wax wér wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuxa Lumu wax yalla ko wax te neena ab rambaj kat te moy kuy jaxase ay nit ci anamuk yak yonent neena amul place janna nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam romb na ci ay xabru ay armeel yàlla wan ko ci biir armeel yi ñaari néew yu ñuy mbugal mu di leen gis nii ñu di leen mbugal seen biir bàmmeel yonent ne leen ñaar ñii tëdd ñu ngi leen di mbugal mbugal mu metti waaw ñaar ñii tëdd ñu ngi leen di mbugal mbugal mu metti ne leen xam ngeen lu nu defam mu ne ko kenn ki fonkul woon làpp bu daan tuur ndox du ferlu loolu lañ koy duma ki ci des nag ak ab ràmbaajkat la woon da daan toxale wax ci nit yóbbu ci nit ngir yàq dar loolu lañ koy duma keroog yenent ci yërmandeem ak ci mbaaxam mu ne nañ ko fàqal benn bànqaasu garab ñu daggal ko benn bànqaas mu damm bànqaas bi ci digg bi xabru bu nekk mu samp fa benn bant ngelaw li di ko upp mu ne ndax yàlla sax fii mi ngi tooy di jaayu yàlla dina teggi mbugal ci ñoom ci ngay gisee cosaanu bu ñu robee nit ba noppi damm ci salaan yi sampal ko ci bopp bi loolu mooy cosaanam loolu mooy cosaanam yonent moo damm garab gu tooy gi samp ci bopp bi daldi ne maa ngi am yaakaar bu wér ci yàlla te looloy dëgg fii ak mi di leen tiim yàlla teggi mbugalam ci ñoom fii ak mi ngi tooy di leen tiim yàlla teggi mbugalam ci ñoom ndax garab gi ko tiim di sàbbaal ci bopp bàmmeelam li muy sàbbaal jaamu yàlla la jaayu gi garab gi tooy di jaawu di jaayu mi ngi jaamu yàlla ci bopp xabroom te fiig mi ngi jaayu yàlla nga koy bindal yiw teggil ko mbugal loolu mooy cosaanu ñuy damm bant di samp ci xabru yi waaye bu mu doon bant bu wow nag parce que yeneen te dana fiigu wowul yàlla dina teggi mbugal ci ñoom léegi nag mu des ndax suñu bant yi ni samp ak bu yeneen waaw ah, yàlla na ko ci yàlla aj ah, yàlla na ko ci yàlla aj nee na mais li am solo mooy nga xam li taxoon ñuy duma ñaar ñooñu loolu loolu ñun lu yomb la ci ñun ak a bare bu nu amoon kasfu boobu dana bare xabru yoroom bu sam bu fay bant de wala garab gu tooy boobu nee na itam yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na تجدون شر ناذد الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه wa man kaana daa lisaanayni fi dunya fa inna allaha yajcalu lahu lisaanayni min naari yowma alqiyaama nee na yonent nee na pour nga xam ñi yées ci nit ñi li yàlla bind ci doomu aadama nee na ñi ca gën a bon ñi ca gën a yées nee mooy ñi am ñaari kanam nga xam ne ñaari kanam lañu am xam nga nit ko am ñaari kanam moom kenn mësul dox ba dajeek moom ay eh, loolu jàngale la nee na ñoo yées ci lu yàlla bind mu mel dañ na ko mooy ñan mu ne mooy koo xam ne bu ñëwee ci ñii ñëwee kanam gii bu demee ci ñee demee kanam gële double fas la mënee na ndeyjoor ne na càmmoñ caay-caay ak mbaax lépp lay doxal ne na yonent ne képp ku yor ci àddina ñaari làmmeñ ne na yowmal xiyaam sunu borom dana la defal ñaari làmmiñ ngi wéet ak moom ci biir safara di ànd ak mbugal ma lan la jublu ci ñaari làmmiñ man kaana daa lisaanayni ay yatakallamu maa haula bi kalamin wa haula bi kalam wa hiya maana saaxibul wajhayni loolu mooy borom ñaari kat mooy nee na koo xam ne day fekk ñaari kan yoo xam ne léegi-léeg sax seen diggante neexul mu ma mëneeg ñaar ñépp waye fum ca dem ne ko yow day yaa ni ci deug de nangam nangam waxa wax bu deme ci kenn ne ko yaa ni ci deug de nangam nangam nangam parce nga gis lo ñaari kàddu la te ñaar ñu mënewul ku mu ci dem ak yow ko ko rambaaj kat la le Cheikh Umar waxon al mujahid al akbar radiyallahu an damun madhun wa damun fi fammin wahidin min wahidin fi makanin wahidin min wahidin li wahidin ajabani Omar muna man day jaaxle na nit ko xamni lamiñam ben lamiñ bi mu yor ci la tok ci ben place tag ci nit ci place bobu khas ci nit ci place bobu ci ben lamiñam ci ben jëm waw aw tag aku khas, bu joge ci ben nit jëm ci benn nit ci benn place te kat dañu wax lu dul noonu ci moom muy ñëw di ko dégg mu dégg jëwam te jëw ba rafetul te ñoom dong nga fa nekk mu ñëw toog seen biir nu taggu ko mu ne man nag jaaxle naa nag mel ni jëmm ji ngeen waxoon lu ñaaw benn jëmm ji ngeen taggaat mais li yéeme ki xasoon moo taggaat te ci même place bi lako défé wat lu xew mu ne kuy jommi nak li rek mo la wara a jommal ma dafan wa damun fi famin wahidin bi makanin wahidin min wahidin li wahidin mun ajabani xawma taggé wek tagg wi bu ci gëna yémé yéeme itam wa namamu shu'mun la tanzilu rahmatu ala qaumin huwa fihim nee na ab ràmbaajkat gaaf la de nee na barab bu mu nekk sax yërmande yàlla du fa wàcc kon xam ngeen kooku jaxasoog moom erreur la waaw na itam wa namimatu min asbaabi allati tujibu adab al wax nañ ko léegi nee na bul jaaxle bokk na ci liy waral mbugalu bàmmeel ràmbaaj ñene ne fii ak yaa ngi rambaaj jàppal ne ba mel kenn mu la ca tax muccu de rek ta de rek mo la ko téré ñam nee day waral mbugulu ba mel jaxasi aw nit nee gis nañ ci xadis yonent sallallahu alayhi wasallam ni shiraru ibadillahi almashauna bin namima almufarriquna bayna alahibba wan namamu yattaqi nnaasu li sharri yonent nee ñi yées ci jaamu yàlla yi nee na mooy jaxasekat yii ak rambaajkat yii nee na di toxale wax ci nit di yóbbu ci nit ngir jublu ci yàq nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na inna charra annaasi inda allahi manzilatan yowma alqiyama man tarakahu nnaasu ittiqaa charrihi ndax nag wan namaamu yattaqihi nnaasa li charrihi bu ñu nitee nee na ab ràmbaajkat nit ñi dañ koy moytu dañ koy daw xamuloo ni nit ñi bu ñu xasee xam ni kii ràmbaajkat la rek ñu coupé sa diggante ak ñoom ne la kii ràmbaajkat la sama diggante moom ça va na te yeneent nee na ku dem ba nit ñi génne la seen bopp ngir yépp ne yaa ngi rambaaj nee na mooy ki gën a yées ci yàlla bind waaw nee na yowmal xiyaam wàccuwaay yeni wàcc nit ña ka gën a yées wàccuwaay neena moy ki ñépp bàyyi ngir yëg ci moom ak caay-caay akuk mbon akuk ràmbaaj ba tax ñépp bal ene sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wanne toog ak ñu mel noonu ràmbaajkat kat lu dul dëgg nee na boo toogee ba ñu tàmbali ku jugal bul jaxasoog ñoo wa ida raayta alladina yaxuduuna fi ayatina fa'rid anhum فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره نينا بو boo toogatee seen biir nga deg ñu tàmbali di ramba rambaaje ka jaxase mu ne jógal jógal de nena na dugun ci benen gam jógal nga dem wa imma yunsi yanaka ash-shaytanu fala yaq'udu ma'a dhikra ma hal qawm maa al-qawm adh-dhalimin nena bu la shaytané mënee nga fàtte nak ba tok seen biir parce que yàq yi ñu yàq dafa yàq xol mu ne boo fàttalikoo jógal te bu mu la dalati bul toogate ñoom ginnaaw bi nga xamee lool parce que nee na ñooñu ay tooñkat lañu kon nee na am na ci lool sori rek mooy tax nga mucc fam benn lépp bu téere arab yi di faral di lépp jamono bi nu daan jaay jaam benn xale bu ndaw ñu di ko jaay jaam mais ki koy jaay nee na xale bi da ko mënatul yoon ndax ab rambaajkat fu mu ko yóbbu rek mu jaxase dëkk ba mu jël ko di ko jaay waaye ku honnête la nag bi mu koy jaay du nëbb danaan ab rambaajkat la soxna si ne ko ñun ñaar ak ni nu wéetee kenn kenn ku nu mën a jàppale ci kër gi amul te doo ko jël rek mu nekkal nu sunu booy di nu liggéeyal mu ne ko xanaa déggoo li mu ci teg nee na moom rambaajkat la mu ne ko waaye xam nga ne rambaajkat la mu ne ko xam naa ko mu ne ko man xam naa ne rambaajkat la mu xam naa ko kay mu ko kay jaan Tadi rambatkan dire rambaaj kat mu ne boo ko nañ ko jël l'essentiel ay waxam nañ ko classer rek nañu xamné ne rambaaj kat la bul sukkandiku ci waxam duma sukkandiku ci waxam mais ñun mën nañu jëriñ parce que ñi ngi liggé mu ne ah, kon bismillah mu jël ko waaye mo tass seen kër mo tass lool pouvoir yeggu ci to rek nee dal xeyul xëyul ludul ku xam jigen ñi ni ñu faiblesse ci walu wujju duñu ko magalé duñu ko mataale dañu koy muñ rek waaye ñi ko ci mën a dékku barewul daf ci am nag ñu nite nak ñoo xam seen fiir seenum nite moo ëpp doole waaye neexul de dañ ci am faiblesse loolu kenn amu ci pexe waaye nak ñu ci bëri seen ngëm ak seen nite mooy tax ñu mën ko dékku te duñ ci am benn jafe-jafe xale bi bi gi ci la ko jaarale ndeke ndaw si ku fiir la ku fiir la mu ne ndaw si gis naa sa jëkkër a ngi labat beneen jigéen di wéet ak moom te dig na ko nee na ko dina ko takk mu ne ko nga ne mu ne ko waaw te xam nga jigéen bu tàmbalee xool lool ci borom këram soo moytuwul rek mu gis ko boo solee mbubb mu rafet sax mu ne ah temps yi daa mel ni am na fooy dem de mbubb kese mbubb mu commencé di bàyyi xel lool xale bi ne ko man day am na lu ma jotoon a am ci mag ñi comme dafa bëri affaire. soo ma mënoon a amal lenn ci karawu sikkimam danaa fexe ba defal la ko mu topp la ba dootul tal benn jigéen jigéen ñi ko bëgg ka bare ñoo ëpp ci njabarkat yi nag jigéen ñoo ëpp ci njabarkat yi te li ëpp ci njabar ganu nekk seen sëy rek la jëm li ci ëpp loolu fa nga dal amul benn chance nga ne yow kenn képp ak sa borom loolu amul chance bàyyeel yàlla lépp mu ne ko nu ma koy amee mu ne ko da ngay wut paaka bu tëddee di nelaw nga xof ci sikkim bi indil ndaw su ne ko loolu mën naa nekk daas paakaam rek denc di xaar boroom këram nelaw laata mu cay yegg xale bi yegg ni ci jëkkër ñu ne ko ah, li may dégg fan yi bëgguma la ko wax de mu ne ko lan la mu ne ko déet naa bàyyi noonu parce que damay bañ a wax di yàq mu ne ko mais waxal rek mu ne ko déet bàyyi noonu rek de waa ji kumpa gi di ko bëgg a rey mu mujj moom mooy daw di topp waa ji pour mu xamal ko li mu def ci bopp bi ba pare te yeggul lan la loo mu bëgg wax mu ne ko dee damay bañ su ma waxee ngeen na yàq diggante bi mu ne ko mais waxal rek mu ne ko li ma dégg tey sa soxna sii am na gu koy seeti te wallaay bugguma la ko woon a wax ndax bañ a yàq diggante rek te dig na ko nee na ko dina la takk waaye ci kaw nga rey sa jëkkër mu ne ko ah mu ne ko maa la ko wax bu la neexee bul gëm nag mais toogal di ko bàyyi xel waa ji wàcc rek teel nelaw nelaw lu ndaw si it jàpp ne nelaw na déglu déggu lu dul xurr di xërën rek mu defe ne nelaw na mu yuutoog paaka bi di yuutu sikkim ba te karaw dong lay wut ndeke jaa ngi piis bët bi di ko xool naka la laal sikkim bi paaka bi jub ko rek mu fël loxo bi tëral ndaw si ne ko de xëreen di ma ne ko da nga maa bëgg a rey ma rey la benn yoon nii te li tax rambaajkat bon daf leen a jegeel ay image yu xaw a am ñu gis image yooyu loolu moo tax mu gaaw mooy li mu féetale ndaw si mu koy xeyaal mu commencé di gis lool li mu wax ku góor ki mu jegeeg loolu nit ku yor paaka juble tee sa sikkiñ ñu ne la dalay rey daf ko jege ci yooyu la rambaajkat di dox ba yàq nit ko la ko rendi xale bi ne pëccët daw kër mbokki jigéen ka ne leen sama papa ak dañ doon xeex sama na ko ñoo ñooñu it am ñàkk sagu gu toll ni ñëw fekk fa góor ga ne ko deqareen ni ne ñun ku rey suñ nit ñu rey la duñ xaar sax yoon di ci wax ñaari famille tëgër bëjoo la ca dee ci ay doomu kenn xamul nu mu ci benn nit te ñoom ñëpp demoon nañ ba xam ne rambaajkat la ñu ne waaye nañ ko maîtriser seen biir moo ëpp doole seytaane ma wax la ko waaw yàlla ñu ci yàlla musal nee na bokk na ci li koy waral nag nit ku dul fuglu boroomam adama muraqabatillah nee na nit ku dul fuglu yàlla doo def ay observation yu xóot sa diggante ak sa borom ci jéem koo wéetal jéem koo bàyyee sa bopp jéem koo wéetaliku loolu heure bu dañee ci yow rek nee na nga tàmbali ay pexe neena na fa muy mujj ak yow mu yóbbu la fu mel nii nee na bokk na ci ñaareel bi kay waral itam mooy ak réer réer nit ku xamul waaye ku xam li xew xam ne yooyu du jëriñ mukk day lor rek ñaareel bi ci des boo xamoon gravité bi fa mu toll ak atteem ci lislaam doo ko def nee na bokk na ci li koy waral itam bëgg a lor sa mbokk nit mu leer la ne lii ngay wax du dëgg mais diw laa bëgg a yàq moom xam ne li muy wax du dëgg mais nag pour mu yàq diw nee na foog mu def ko waaw xubbu namaamati li idraari bil xeyb nee na bokk na ci itam li koy waral mooy bëgg a sa cofeel ci nit koo xam ne soppuloo ko yow buggoo te buggoo ko wan ne ko buggoo ko nga di ko fësalal loolu di ko andil nit gaaral ko ci kanamam pour yàq ko nee na bokk na ci itam li koy waral nee na di toog ak nit ku jubati jaxasoog nit ku bon da yóbbu ci anam bu mel noonu ndax da lay nga am ay inspiration yu bon bu yàggee nga jëfandikoo ko nee na bokk na ci itam doxful imaan nga am ngëm gu faible ngëm gu doyadi bu sa ngëm dëgërul dangay jàpp ne lépp ci ay pexe la tege waaw te wala yahiqu makru shay illa bi ahli nit lépp looy pexe suba ba jant bi so te daanoogul ci sa kaw say pexe pareegul waaye buy pare sa kaw la jëmaat loolu amul sax werent nee na bokk na ci li koy waral itam bëgg àddina ak dëddu alaaxira raxabatu fi dunya wa zahdu fi alaaxira wa na nit ku bëgg àddina ba pare dëddu wan ginnaaw alaaxira xolal ni mu contraire te yow adina dala won ginaaw alaxira djublu la yow nga wat alaxira yow dublu adina te buñ la doon won image nit ak adina mi ngi melni yow fi nga taxaw ni adina dafa jakarlo won ak yow mais gis nga bi nga ne cëpp mën wul bit won la ginaaw di dem di dem te do ko dab nak da nga yutu di daw rek mom won la ginaaw di dem jamono bobu alaxira mi ngi sa ginaaw di la te moo la gën a gaaw vitesse te yow gi ngay dàq doo ko dab te moom dina la dab yow loolu mooy xaalu nit fii ci àddina moo tax kenn mënu laa wax ne téye naa àddina amul loo jàpp ne boo ko amee am àddina rek boo xoolaatee sa kanam ba léegi yaa ngi yëg ne téyeguloo àddina ci sa loxo soo gisee nit bu toogee ci nguur du bëgg a bàyyi parce que da dul daj àddina daa defe na woon boo toogee rek daj nga ko mais dangay toog di yëg ne affaire bi doyagul ngay yuuti di dem doo ko daj doo ko mës a téye ba nga juddoo la la woon ginnaaw di dem yow nga daw di ko topp alaaxira dëgmal la te boo nite woon ba mu la wonee ginnaaw ngay wëlbati ko woon ko ginnaaw la Cheikh ma xamdul Moustapha doon wax jamil àddina banaal ak safari dof yi la nopp man day daw see di ndaw si ma nopp yow àddina ku la nopp dafa xamul mbon mbon yi nëbbu ci yow bis bu ko xamee dana la sànni ni meddu mu nëbb nee na ku yàlla nattu jikko yi feeñ ci yow nee na war nga defi pexe pour nga mucc ci nee na bokk na ci pexe yooyu nee na nga téye sa làmmiñ te moytu jataay bu dul jataay yu texe nga téye sa làmmiñ te nee na di toog ci jataay yu yiw nee na itam di barelooy looy zikkar turu yàlla ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngir feebar boobu dañ ci yow nee na itam ngay teewlu ci sa xel ne yow jikko ji ngay def di yak, yangi tatan bugulu mbugalu yàlla ci sa bopp yow yaa ngi sabablu mbugalum yàlla muy sottiku ci sa kaw nee na itam ngay teewlu rëyaayu li ngay def yow di yàq ay xolu jullit mën fekk nit ku baax ku yiw ku sop ñëpp am ak ñëpp jàmm nga fexe ba ci xolam mu bañ nit waaw ngay xalaat yow dangereux li nga def lu rëy lool nee na yooyu xalaat mën na sa nee na itam ngay xalaat ñaata diggante nga tas ci ay xaritoo ak i sëy yoo xam ne tas nga ko ci sa làmmiñ nee na itam nga bare loo yër aaya yi ciy wax ak xadis yi ciy wax di la tiitloo ci kuy jaxase aw nit nee na itam ngay jéem di siiwal mbaax ak cofeel ci ñi ngay yàq seen der nee na itam nga góor góorgóorlu ci jéem a yëg ne buddeekoo ci lii mooy sa sababu dugg ajjana ngay defi pexe pour buddeeku ci lool nee itam ngay bàyyi xel ne fii yaa ngi wër di wuññi awra di leen jéem a tas ak di suufeel sunu borom dana wuññi sa awra donte sa kër la koy wuññee ba sa njaboot yépp xam ko dana la gàcceel ci digg pénc nee na itam nga wut gaa yu baax yi nag di ànd ak ñoom parce que jaxasoog nit ku baax dafay tax nit baax yaa ayuha alladina amanu taqullah wa kunu maa sadiqin nee na itam nga bëri looy fàttaliku dee parce que nee na dee daf ñu jege lool ak deewu mbetteel yi léegi ni mu bare nee na nga bare loo koy fàttali lool nee na loolu mën naa tax nit ki lu bare lu mu bëgg a def